euh, ngi connecté wu ci Pikini Production. Mhm. monsieur le ministre li avez lay njëkk laaj mooy tey jii naka nga victoire Benno Bokk euh, victoire du président Macky Sall la mu candidat wu Benno Bokk avec ak grande majorité présidentielle ma am ci peu de rëy am ci euh, satisfaction mais nag mbégte beeg satisfaction bi yëpp humilité ko ndax bo gagné élection présidentielle avec 58,26 euh yakarna né 41, quelque chose pour cent yi nga xamné woté luñ la war nga leen a xel ci déroulement mandat bi kon nak président gagné na mais euh, ñun ñi àndoon ak mom ñun ñëpp war nañu am li tubab di euh, le triomphe modeste ndax dañuy war a bàyyi xel suñu compatriotes yi nga xam ne ànduñoo président te ñu war a xam ñu war a gëstu ba xam li tax woteluñ ko. Euh, tey ñu bëri naan président Macky Sall naka la def ba am pourcentage boobu parce que pourcentage yi mu am bett na ñu bëri yaakaaroon na ni deuxième tour dina am pour yow lu waral sénégalais yu toll noonu yëpp votel ko naka yow la ci premier tour bi. Euh, li ko waral weesuwul d'abord liggéey bi mu liggéey entre 2012 ak euh sénégalais yi tek ci beut ndax euh, jafena nga dem ci deuk wër ko ba génn tund te lu fa président Macky Sall liggéey euh, li ci top aussi président Macky Sall def na campagne électorale bu jaar yoon ko deuk dem na fa wax na ci bilan mais insister na ci lim wara def après yaakaar naa ne loolu moo waraloon mbooloo mi topp ko loolu moo waraloon aussi le 24 février euh, Sénégal yi dem woteel ko en tout cas man euh, je ne sais pas ndax par naïveté la wala excès de confiance mosuma am xel ñaar ci ne président dina jàll premier tour mosuma xalaat deuxième tour même avant résultat yi di génn. xamoon nga ne day jàll premier euh, tour amoon naa ci njort. njortoon naa ne dina jàll premier tour parce que gis na adhésion populaire bi topp. Euh, président Macky Sall du nord au sud euh, man yàlla def na euh, am ci ay seede politiques, naa acteur politique Sénégal ndax dama daan tournée demna fi président Macky Sall Sénégalais aussi du ci wala euh, wax yo xamné ne la euh, campagne électorale tax nga dem ci dëkk ba di leen wax yo xamné taxawul euh, ku ci opposant yi Sonko Idi ñom dégg nañ la né nañ résultat yi baxul dañ ko sacc waaw loolu man mhm. ndax ku lecture bala neex ngay def mhm. respect considération pour ñooñu ndax ay sénégalais lañ li man ci élection yi Waye, kuy wax ak sa tëraayu bamel xam nga ne Sénégal kenn mënu fee sàcc élection ndax résultat yi ñu génne bureau de vote par bureau de vote centre de vote par centre de vote am fu président gagné am fu président perte am fu mu gagné lu bari am fu mu perte lu bari kon nak yaakaar ne képp hamne xam ne ngi wax ak war nga président résultat ñu du résultat yo xamné mën nañ ko fabriquer ndax fi Sénégal wessu nañu fuñu fabriquer ay résultats kon nak kenn ku nek da ngay wax rek sa tollu way ak euh, la nga yaakaaroon mo la mëna a euh, indil résultat té amuloko waaw. ku ci melni Sonko gaay ñu né révélation la parce que bi moy première participation mu ñëw am 15 et quelques pour waaw koku kooku d'accord na ci euh, Ousmane Sonko wax deug neex yalla def na percée bu bu am solo te dara waralu ko nak ludul euh li nga xamné mom lañu Sénégalais di gis homme politique di taxawé euh te mom muy acteur politique bu bess, ak discours bu bess, boko suivre assemblée nationale euh, buy intervenir ces interventions sont toujours documentées du tok rek ni di wax du nak lépp li muy daf koy wër ci lu am euh, mais dina documenter intervention te dina def intervention yu am solo ci campagne électorale bi également euh, def na campagne bu am solo euh, te bo gisee li ëpp ci ñiko top moy euh xale yi ak ñi ñi woyé primo votant yi te liko waral waral weesuwul euh, politique de jeunesse bi mo xawa dess parce que Sénégal kenn mënu la wax d'un point de vue statistique ñaata ban taux de chômage lañu am ndax xale yi moo xam ñi génn université Moham xam ñi de école bari alors Yakar, parce que si dem di un candidat à une élection présidentielle da ngay gi inspiré porter vers mom kon xalé yi dañu am avec euh, le candidat Ousmane Sonko Nous nañu euh, fajj sen ay soxla ak sen ay euh, def candidat Ousmane Sonko mais euh, ay mbokkam watal nañ ko. parce que lolu lolu moma gëna metti nak ci élection yi. Mhm. ndax élection bi révélé na né Sénégal ethnicisme commencé na fi am loo xam ne mosulu am waa Casamance watal nañ Ousmane Sonko wa Fouta ak Saloum gam sin ak gamu dëkk ak yeneen dëkk yi nga xamné aussi liggéey na fa liggéey bu muccu ayib wootal nañ président Macky Sall mhm. donc pourcentage bi mu am euh, bettu ma ndax euh, ku gissone mbolo mi koy top euh, xamoon nga euh, candidat Ousmane Sonko euh, dina def score score buy jaaxal nit ñi la c'est un homme d'avenir hein, il a l'avenir devant lui il est jeune 44 <laughs> 44 ans 45 ans donc yakarna né il faudra compter aussi sur lui pour les élections à venir. D'accord. ku c'est mel Idrissa Seck parce que nous, bëri dit que c'est sa dernière chance pour nous. pour nous non non Idrissa Seck bii du dernière chance Idriss mm. Idrissa Seck. Ben at moi j'ai 60 ans Idriss Seck a 59 ans Idriss Seck a encore l'avenir devant lui je pense que ñi koy wax xëy na nous bëgg mu dem toog ci touche ba ñu jël place mais Idriss Seck a encore un bel avenir devant lui et je pense qu'il euh, le comprendra comme ça et il poursuivra son engagement politique parce que Momit, it euh, euh, yaakaar naa ne kuy xam état Idriss Seck ci la bok. ndax ku nekkoon ci wetu Wade jàng politique ci président Abdoulaye Wade nekk directeur de cabinet président Abdoulaye Wade premier ministre du Sénégal tay moy président conseil départemental du Thiès wërna Sénégal donc xamna jafé jafé yi nekk ci Sénégal yépp mais yalla def na ah li président Macky Sall wone boppam ci walu liggéey mom amagul occasion def ko motax sénégalais jox bop président Macky Sall moom joxaguñ ko bop xeyna na avenir aussi mu ci karamam euh lan mo waral nga nga dem euh, euh, fekk fekk ji mouvement présidentiel. alors liko waral euh wessoul ci d'abord duma won candidat. Mhm. té bo nekul candidat té duma ma il faut mu am ku choisir mais dégg la woon nga ne da ngay poser candidature. waaw waxon nako ko mais euh, politiquement et financièrement paré wu ma politiquement parce que boy nek duma nek man candidat rek buy dem di reetaanloo nit ñi mhm. man bu may dem nek candidat bu ko yalla dogalé euh, bu ma je damay wax je suis candidat euh, projet de société mais mais suis madame pour euh, vraiment faire le charlot ou di directe nit ce que donc candidat yi nga xam ne ñoo taxawoon ne dañuy président Macky Sall ci d'abord il la fait ci sur le plan personnel ensuite sur le plan idéologique il a à la il faut que je da ngay ki la doy mais mënuma tan ko xamné ne d' abord xaw la euh, koo xam ne su man maa la ëpp expérience su gestion ou état du ma ko tànn président Macky Sall mooy te candidat bima doy moy candidat bima gëna xam moy candidat bima gëna gën te mooy candidat aussi bi tok àddina tok mu souleyman Souleymane bëgg nga ñëw jàppale ma bi ma ko waxee it ma consulter suma parti ñi and ci andu ñu ci ñu jël suñu responsabilité président Macky Sall ñuy andal euh, bi nga bi nga recevoir bi nga bi nga démé rejoindre président Macky Sall ñu bëri dañ ne bettu len won dafa yéx sax parce que bi nga génné juste PDS fofu la la gars doon xaar. waaw euh li ko waraloon rek moy sama digënté bi ma amone ak président Macky Sall ndax euh, fi kenn ku nekk am nga digënté ak sa morom ndax buñ demoon seeti Sidi Kunta euh, mu baal ma maa ngi tuddu turam parce que ñëpp xam na digganteem ak président Idrissa Seck euh, buñ démon gisi président Sidi Kunta tok bé ñuy lam lamé naan ànd na ak euh, benen candidat bu dul candidat Idrissa Seck dina jaaxal nit ñi ndax digënté bi mu am ak président Idrissa Seck man ak président Macky Sall dañu am digënté bu yagg bo xamné politique lalu euh dañu n'ekon euh, di and ci euh ñu dembe suñu yoon séparé wu ndax ba muy dem di créer ji partem bobu APR quelques minutes avant wonako téléphone n'eko ko dem togal ñu xex xex bi ci biir parti bi Munema dem dafa jot ci man damay dem ma ko ah mané duma la top man président Abdoulaye Wade moy suma mentor luma am mom la luma xam mom la mais bi nga xamee ne ci biir PDS dem nañu ba euh, ne tànn candidat jot na ma xool ne anam bañ ko tànnee ànduma ci liberté ba ma amoon ba en 1976 ma adhéré PDS liberté booba laa jëlaat ne génn naa PDS ñu créer parti politique ak ñi nga xam ne maa ngi ñoo ma bokkoon gis-gis euh, suñu bëgg-bëgg moo nekkoon. ñu bokk ci élection yi parce que loolu moo waraloon ñuy def tournée nationale dëkk bu ne ñu dafa dérouler suñu programme bi nga xam ne moom la pour Sénégal alors président Macky Sall par euh, euh, euh, le pur des hasards fekk ma ci benn daje Ndéma Souleymane dama bëgg nga ñëw ligue ak man ci bi may Sénégal ngir intérêt Sénégal yaa sa parti mangi suma parti bi ma consulter suma may nit ñu ne ma euh, li le président Macky Sall wax benen tontu boko meuna tontu budul nanguna loxo bi ma talal tàllal euh, tontu woko li ko wara tontu lolou mo war ma dem ànd ak président Macky Sall euh, te nak diko assumer xamona bima koy def li ci fek xamona ne je ne transhumerai jamais je n'ai pas transhumé j'ai été rejoindre un candidat mais dewma dugg ci parti politique parce que notre parti existe encore xamona ne dañ ma saaga xamona dañ ma khas

gagné na élection yi maintenant c'est un autre avenir qui s'ouvre devant nous et comme euh, Dieu est le maître des destins euh, ñu ngi xaarandi ba xam lii xew ëllëg lan lay doon li li lu wax nga sànq ni que da nga dem ak sa parti lan moo tax bëggoo ñu utiliser mot transhumance transhumance dafa rafetul wala xam nga transhumant euh, man li may woowee transhumant mooy ku quitter parti dem ci beneen parti dugg fa waaw nga jóge ci parti dem dugg ci beneen parti ma loolu dalaguma. bëggoo loolu yow. déedéet non noonu du lu may bëgg wala lu may bañ xam nga nit ñi aussi dañoo am liberté d'expression kenn ku nekk lu la neex ngay wax réew mi fii chaque jour nga gis ku yor télé bi jël ay saaga ndey di ko di ma ko teg wala di ko teg keneen ñàkk yar la ñàkk xam-xam ak wax lu la neex looloo fi xew parce que malheureusement démocratie yaakaar nañ ne mooy nga téye télé bi def sa benn vidéo ku la neex nga saaga ku la neex nga xas ku neex nga ŋaañi ku nekk am na liberté comporté woo nala neex nañ la yaree mais man Souleymane Ndéné weesu naa loolu ndax ba président Abdoulaye waat di tànn directeur de cabinet ñam mënoon tànn bare nañu man la tànn te dafa amoon lu tànn tax mu tànn ma ba mu tànn premier ministre ñam mënoon a tànn bare nañu euh, man la tànn xamoon na li tax mu tànn ma waaye nag am naa liberté bu ñu toogee ne dañu tànn candidat pour pour parti bi consulté wuñu ma am naa liberté nag ne tanef bi anduma ci ma génn ci parti ba. waaw question boobu sax na naroon ñëw lan moo indi sa motivation ba nga toog ne damay quitter PDS dem créer sama parti boobu. oui parce que niñ tànnee candidat bi moo ma neexul woon xamoon naa ne candidat bi mënul nekk candidat. mooy Karim Wad voilà mhm. xamoon naa ne mënul nekk candidat. Mhm. kon li ñu bëri naan ay dafa woor bàyyi PDS. non man ku ma wax ne dafa woor da ngay wax lu la neex man wooruma kenn parce que parce que dañ ñu ñu ma yeggal question parce que ñu bëri dañ naan relation yi nga amoon ak ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade dem nañ sa ba ne Karim yow yaa ko wax yow yow la seet si woon pour dem seeti euh, sëriñ bi pour ñu ñaanal ko Clémence ak Macky Sall. waaw mhm. euh, xam nga euh, am na ci yoo xam du ma ci sori. Mhm. keroog ba ñuy def bureau politique bi ñu mujj soppali congrès. Mhm. di tànn candidat. ñëpp xamone Karim Wade la ñuy tànn.

Quand président Macky Sall fait tournée ñu nous dañuy monté à la fédération mais renouvellement bu jaar yoon 94 lañ ko def man secrétaire général euh, adjoint la fédération de Gossas Je ma secrétaire général euh, section communale PDS bu donc depuis 1994 tànnuñu un représentant parti ñu xëy suba euh, am kenn ci responsable parti bi jël téléphone am fédération bu ne Diou Diou diw diw diw yéenay ci réunion bi. ñëw cere réunion bi donc xamoon naa la fay xew am na kenn ci euh, euh, responsable yi bi ñu defee comité directeur boobu ba pare ñëw na ci sama nopp ne ma grand j'espère que tu ne seras pas candidat du ma tudd turam mais bu seetaanee émission bi dina xam ne moom lay wax ma ne ko sëriñ bi man du ma kajoor kajoor saalum saalum la waaye junj bu doy na borom xel eh, man doomu ceddo la boo junjee rek ma xam fi nga jëm xam naa li waral comité directeur bi ak li waral président secrétaire général national tànn ay nit ne len yéen yéenay saytu candidature yi joxe délai ba délai ba jeexee ken déposé wul mu ne prorogé na délai pour que gaay déposé mu jël téléphone am di wo ay nit ne len nek len candidat man bokuma ci ñam donc xamoon n'a fa jëm te xamoon ne candidat bobu mënu la nek candidat parce que nak réew mi dafa am. Euh, lu tax euh, euh, lu tax yow ando ci mom mu nek non anduma ci parce que d'abord amul légitimité bi man amna légitimité bi man dama nekkoon ce jeunesse UJT avant mon nekk UJTL fallait commencer. 1976. groupe étudiant ñoom Sandigan. avant non avant eh, groupe étudiant élève je suis UJT coordination des cadres je ñu créé bokk naa ci membre fondateurs yi bokk secrétariat national comité directeur donc dama. Euh, dem bokk conseiller municipal en 1996 ce Guinguinéo mhm. nek maire de 2002 à 2014 ce Guinguinéo nek conseiller régional Fatik, nek vice-président conseil régional Fatik. da nga membre membre mhm. euh, euh, convention régionale bu Fatik. donc membre fédération de Gossas donc man dama rampe ci parti bi xaaruma ba 2000 manan Mangi ngi a di xëccoo ay poste li tax.

amna lu mu waxtaan ak mom man mom ak yalla miñu tim amna luñu na lu ñu waxtaan bureau amul seede du ma toog ko wax moom xam ko bëggoo seetaanee dana xamné ne keroog ba ñu le euh biñu défé élection premier tour ba le lendemain bañ may diñ nan dama wo Macky Sall di ko félicité ba ak mom amna luñu waxanté ci deuxième tour bi gis na sama engagement man ànduma woon ak Macky Sall man su doon man Macky Sall kenn du fal premier tour kenn duko fal deuxième tour président Abdoulaye Wade la àndaloon keroog biñu gagné biñu gagné euh ma fekk ko këram la ma ko wax président Abdoulaye wad euh yow gatché ngalama li nga waroon def def nga ko sénégalais yi ñoo am liberté choisir président bu len neex tànn nañ Macky Sall mais vous pouvez quitter le pouvoir la tête haute ndax yow rek yaay président bo xamné def nga fi mandat ñaari mandat ben 7 ans ben 5 ans bàyyi fi bilan bu ñuy tek bëtt kon nak mën nga xol sénégalais la tête haute bàyyi nga fi lo xamné kenn yaakaarul woon ne mën naa am Sénégal. soo ko wax ni que boo boo demee dénk ma parti bi. déedéet mosuma ko wax loolu. Mm-hmm. mosuma laaj dara man ci PDS. lu ma mos am rek ab Wade moo xool moo ma xool rek xam ne yelloon naa ko mu jox ma ko. mosuma ko laaj parti. lan moo waral lan moo waral choix wu ki nga ne amul légitimité. amul légitimité parce que fi ñu jaar jaaru fa. ndax bu doon affaire yi ndono buur président Abdoulaye Wade du nekk président Sénégal. Njaajaan am na ñu ko jege président Abdoulaye Wade. jajan Njaay laa wax de Bourba Jolof nekkoon Barak du walo amna ñu ko jege pouvoir mais loolu xewi 1960 lañ créé république république du affaire ndolo mënon n'a d'accord. bañuy engagé wu ñun biñu ñu usité mom bokku ca mom 2000 lañ ko gis té taxul won mu bokku ci parti bi dafa créé won benn structure parallèle génération du concret gisoo benn nit bu bokkoon génération du concret bu bokk PDS mais on voyait venir man je sentais venir Je du sama suis ma da ngay top diw par force responsable PS de département de Gossas la woon bon, PS man PDS la ko déposé ci réunion politique PS taal sa moto dem Bon conseil municipal Goss euh, Bon, conseil municipal PDS

niñ ko euh man ci ñi ko japp ñi nga euh, pendant plusieurs mois ma sama kër dem tribunal def sama essence bop yendu tribunal bu mi di joté ma and ak suma yenen morom avocat ñu dem agni ou café de Rome wala terreu bi je m'étais engagé pour son fils buñu ñu condamné doomam ak ku mu mën doon ci adina buñu condamné sa dom état d'esprit ba ngay am kooku yow mañ condamné sa dom ya ko mën am kon nak président Abdoulaye mun ko condamné ci dara c'est un homme libre euh, vacciné expérimenté lamu mu doon wax ak lamu doon def moo taxoon euh, mom rek a xam la taxone mu diko def ni mu mujjé aussi mom rek tax xam. la tax mu def ko kon nag duma ci def benn commentaire en tout cas li ma ci sante suñu borom rek mooy euh, yàlla dimbale nañu ba na mu ñëwee woon mujjeewu ko kooku nag suñu borom laa ci sante ak ña nga xam ne ñoo waxtaan ak moom ba mu changé posture. d'accord ñu ne aussi dafa dafa sacrifier PDS parce que tey Macky falu Macky faluwaat moo ne mooy avantage am parce que mooy dernier a Macky nga xam ni doom ji day mën a ñëw Karim. loolu man nag loolu aw ma ci commentaire bu ma ci def. Mm-hmm. wala ko doom ji bañ a que dañu sacrifier PDS que dañu sacrifier PDS parce que nekkatoo fa koku non koku sama yoon nekku ci mhm. ña nek ci PDS amna ci ay xarit amna ci ay xamé amna ci wëlëre yo xam ba bés yalla tay bi ma ngi wax ak ñom téléphone mhm. ndax euh, PDS du premier parti bi ma bok waye moy parti bi ñu ma gën mhm. kon nak wa PDS amna ci ñom respect amna ci ñom considération président Abdoulaye Wade euh, def na tam ci PDS

xaar woowaguñ la aussi. non ci dara xaaruma ñu consulter ma wala ñu wooma wala leneen. Mhm. ma daal la ma taxoon a dem. Mhm. Euh, yàlla dimbale nañu am nañu comme président Macky Sall faluwaat na pour juróom at damay ñaan yàlla lépp lu mu wax ne dina ko def ci Sénégal rek mu def ko. loolu rek lay xaar. dégg na la aussi nga ngay wax réconciliation Wade ak Macky Sall. waaw ah, loolu jaadu la président Macky Sall dafa war a président non man munu ma ci du ma ci dox waruma ci dox. Lui met ci du mais dafa jot président Macky Sall président Ablaye Wade ak ñu wat boom boy boy ga ñu au moins même sur le plan humain waxuma sax sur le plan politique mais sur le plan humain ñom ñaar ñu parce que lool moy li jadu président Macky Sall fantasiro ak président Ablaye c'est pas normal c'est pas normal euh

waaw Marème Faye Sall ni léegi nii moom ndax am ngeen relation personnelle. non amna naa relation Marème Faye amna relation borom kërëm mhm. voilà. Mhm. Euh, dernier mandat wu Macky Sall ñi ngi naan mi ngi ci dernier mandat am. mu ngi ci dernier mandat maa ko confirmé Macky Sall mën ta euh, briguer beneen mandat. mënu ko la loi lui interdit il ne peut pas. Mhm. té xam naa ne xalaatu ko. kon ñi wax ni que Macky da leen di nax dina fi dina fi. samp loolu Macky du ko def.

d' accord tey jii euh, Macky bu paree comme nee nga mënul ne bu paree yow personnellement ça avenir politique lan la. mënu ma cee prononcé wu est devant nous. Mhm. yàlla ma yàlla may ma gudd fan am wér gu yaram taal ko mën ko loolu rek lay ñaan yàlla ku ma bëgg loolu nga may ñaanal waaye mënu ma wax li may defi ëllëg. Euh, ñiy demandé naka nga gisee tamit euh, demande bi ñuy def pour libération kii di Khalifa Sall ak li ñuy toppee Karim ñu koy ñaan président. alors. Euh, pour être honnête euh, man avocat Khalifa Sall laa doxna ci lu bare bare bare bare bare bare bare dox naa ci ci juge de ci les rares avocats yu fekkee ba inculper Khalifa Sall bañ koy entendre dans le fond bañ koy confronter ak euh, Mbaye Touré ak ñi il naa ci rares avocats yi nga xam def nañ ko doxal naa suma dem Aziz Alamine di suma nijaay ma ko convaincre Khalifa Sall mu cautionné loolu ko parce que xamoon Khalifa ne ko caution rek moo lay gën ci ça va t'éviter deux choses ça va t'éviter que nga continuer de séjourner en prison ça va t'éviter que buñ lay condamné ñu condamné à une peine ferme ça c'est la loi donc si vous avez xam ne bëgg nañ Khalifa Sall génn man ci et je to yokkal ko Khalifa ta place n'est pas en prison les combats que tu dois mener tu ne peux pas les mener à partir de la prison donc cautionnel nga génn nda gars ne wër nañ la tu es avocat Khalifa Sall. nekato nekkatuma ko passé pas avocat. mais euh, j'ai été omis du tableau. Non non non non euh, man c'est ci warona dox dox nako ci euh, xam nga rek dafa am fo ci yem boy dox dara uk. dal ci ëkk da ngay xel donc dalu ci et puis Khalifa, du man rek avocat y avait d'autres avocats la ma daan wax ak te bu prison Khalifa est un garçon charmant nit ku bax la. Macky faluwaat na tay ne nga yow soxlawoo ben poste. mais ba waxuma la ne soxlawuma benn poste de. dama ne mo ben poste. Wa ba jeunes ba bu jox bu la joxulee ba sa jeune yi nga andal duñ la mere. non non non duñ ma mere duñ ma mere parce que euh yi aussi bi ñuy di jàppale président Macky Sall andu ak président Macky Sall pour di xaar mu jox ñu quoi que ce soit. jeunes aussi. waaw suis suñ jeune parti. ils le comprennent ils étaient engagés sur le terrain mais euh, mënuloo bokku ci ben mouvance di un retour ñu ñu rétribuer la wala ñu jox la en tout cas man bokk du ma de ak loolu man après 2000 le président Ablaye a gagné gisatuma bi mu prêté serment le 1er avril 2000 madame dem ci laa ko gëj a gis ba Adama ba jox ko sama numéro téléphone portable may dem tribunal bés rek mu dit ma gis un numéro bizarre 880 80 80 mooy numéro palais ma droité bobu porte du millénaire amagul won mais ma droité fofu euh, jël téléphone bi ben soxna ne ma ah maître Ndiaye mané ko oui bonjour madame mu ne ma man la madame Kan, ne quittez pas avec le président de la république ma ah président de la république. lu may ah lu ma war waaw yow mais yow Souleymane mais compagnonnage bi jeexagul ah yow ba ba ma toogee léegi gisuma la man ah, président man kat sama mission jeex ndax man dama don combattre régime PS régime PS jógee na fi amna métier maa ngi continuer de liggéey mon métier je ne dit non compagnonnage bi ngi soog commencé ñëwoon nga seet tout de suite donc xaaruma dara ci président Macky Sall waaw donc euh, la balle est dans son camp man li def je me suis engagé avec tous ceux qui sont avec moi euh, nos engagements, engagement joxe des résultats. le reste maintenant c'est avec lui. la bande à Sandrine ak militant yi Non, non bande à Sandrine moi. <laughs> c'est une autre histoire c'est maître Leyti Ndiaye maître Koïta, Macky Sall Souleymane Ndéné mhm. Sandrine suñu une xarit la woon bu fi vacances Elle mhm. étudiant la ñu woon euh, bi est ñëwee suñu cousin bu Louis Ndiaye qui est ingénieur de génie civil mhm. nekk ci une entreprise bu tudd Soyeco tey euh, moom moo moo ko fi euh, parce que est bokkoon Lyon Sandrine est de Lyon son père était le directeur de cabinet de du ministre Daniel Kabou à l'époque mais la crise de 62 papa me dafa delluwaat France papaam dafa bokk ci xeetu nit ñooñu nga xam ne dañu jàng rek ingénieur de génie civil de Tambalé, mujj gi mu expert comptable mujj gi mu bëgg a médecine D'abord, ji ne ko non ça suffit dootoo jàng médecine donc mu installé comme expert comptable à Lyon il a il a un cabinet qui a pignon sur rue à Lyon alors Sandrine n'est qu'en Lyon qu'en université Lyon xamante papa lui, parce que papa et papa lui, tonton Ibou le petit ak et Sandrine avons une classe INSA bu Lyon donc ñu xamante mu yebal Sandrine mu ñëw en vacances alors bi Sandrine ñëwee euh, ñun man ak Leyti ñu ngi 46 H pavillon H Macky de 43 H ak ben xaritam donc ko yàlla yërëm Dembo Sall alors mais comme on était quatre copains euh, Sandrine di benn jigéen euh, mënuñu ko draguer ñun ñëpp bon nous sommes léegi Euh, kenn ci ñun bu bu draguer nañ ko bàyyi tranquille nañ nekk ay xaritam ay frère am euh, di ko gunge ci lépp lu muy def donc ñu respecté deal boobu euh, boobu Sandrine Sandrine séjour séjour am jeex fu mu jëm nag ñooy ànd mais kenn du avancé benn pa waaw ñooy ndékkindoo ñooy añandoo ñooy ndoo te ñooy tëddandoo te buñ tëddee it kenn du génn néeg bi. <laughs> kon affaire yi leer kenn bañ a wax sa morom. kenn warul sa morom <laughs> kenn warul sa morom. président Macky Sall sax eh, ubbi parce que néegam la woon mënoon eh, eh, na xaaral ma ubbi buntu bi dem dem ci toilette yi ak yooyu <laughs> mais. buñ tëddee rek kenn du génn néeg bi waaw donc ñooy àndandoo ñooy tëddandoo donc et jusqu'à aujourd'hui on a gardé ces relations là avec Sandrine qui a des filles yoo xam ne sa âge la ñu am de grandes filles Hein, qui ont fait l'université Bien bés ma Nabé Lyon, ba Lyon mhm. euh, yendu ak parents Sandrine ak jëkkëru Sandrine Nous mhm. avons ma woo un téléphone passe leen Sandrine Sandrine est restée notre amie mhm. euh, donc euh, elle est devenue une mère de famille hein. donc elle est en France et yaakaar naa ces jours nous ñu defoon ensemble ci négou président Macky Sall Nous na ci li relation après parce que depuis lors on ne s'est pas quitté voilà même bi mu même même bi mu génnee PDS sax vous êtes pas même bi mu génnee PDS on ne s'est pas quitté parce que daan nañu wax te man daan jël initiative dem këram pour waxtaan ak moom mu dellu si waat PDS et ça yu ma demee rendre na compte président Abdoulaye Wade mhm. voilà. d'accord ñu bàyyi la nga tàggatoo. di am mbégte ak contenté ci invitation bi ngeen ma defal mhm. euh, ma di la ci gërëm ci gërëm euh, Alioune Ndiaye mhm. Samb. Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi suivre seen euh, chaîne de télévision di leen ñaanal euh, chaîne de télévision bi nek comme TFM comme 2S comme télévision Bougane Gueye Dany comme yenen télévision yi nga xamné yépp ak la 7 TV yi nga xamné yépp ñu ngi ci bouquet bi wala ñu ngi ci euh, espace audiovisuel bi donc loolu la leen parce que Ndiaye a les compétences fait partie des meilleurs journalistes du Sénégal euh, On a euh, boppam ci fi mu jaar yëpp moo xam Walfadjri RFM kon nag moom it pour que la télévision soit une télévision boo xam ne dafay dox doxam